yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal na ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamal na ma yonent bi soññ na ma ci ma góorlu man jullit ci taxaw ci lu baax taxaw ci jaamu yàlla guddi ak bëccëg rasul sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla yi texee daf ko yitteloon jaamu yàlla yi am ngërëmal yàlla jaamu yàlla yi dugg aljana jaami yàlla yi yàlla gërëm leen àdduna kontaan ci ñoom alaaxira tomb la boo xam ne dafa yitteeloon seyduna muhammad loolu tax guddeeg bëccëg soññ na woote na wax na jëf na ci taxawaay yooyu benn bis moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu xëy rek mu jàkkaarloog saxaabatul kiraam comme ni mu ko baaxoo di def mu ne leen man asbaxa al yawma minkum saiman waaw yéen tey kan moo ci xëyee koor waay yéen a ngi ni toog tey kan moo ci xëyee tey koor qaala abu bakrin ana seydina abu bakr radiallahu anhu ne ko yaa rasulallah man man de tey bi ma xëyee damaa woor yonent bi nawaat fa man tabi al yawma minkum janaza tey ana kan ci moo yëg mbokkam mu faatu moo yëg jullit bu faatu mu dem gunge néew ba ca sëg ya ca armeel ya kan moo ko def tey mbooloo mi encore ca biir mbooloo mi Aboubacar ne ko waaw man qaala Aboubacrin ana Aboubacar ne ko man yonent bi jékki-jékki waa daan ne faman at amal yawma minkum miskinan waaw yéen tey kan moo ku jox miskin mu lekk ba tey Abubakar ne ko ana man yaa rasulallah maa def allahu akbar am na beneen riwaaya bo xam ne dafa yokk ne faman aada minkumul yawma maridan waaw tey kan ci yéen moo seeti ku feebar waayi ba tey de Aboubacar ne ko yaa rasulallah man allahu akbar kan moo xëy woor Aboubacar ne ko man kan moo xëy gunge néew mu ne man kan moo xëy tey jox miskin mu lekk mu ne ko man kan moo xëy tey seeti ku feebar mu ne ko man allahu akbar fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa majtamaana fi mriin illa daxala aljanna laa ilaha illa allah allah akbar laa ne abu bakar ñeenti yi du daje ci nit lu dul mu dugg aljanna ñeenti yi fi mriin dajewul ci nit illa daxala aljanna lu dul mu dugg aljanna akbar waay waay mbokk yi kon lan moo ñu tere dugal janna bu fekkee koor dafay jóge bu fekkee néew bés bu nekk ñu gis ko wala ñu dégg ko miskin ñoo ngi ñooma dëkk ku feebar ñoom ngi ñooma nekk xoolal jaami yàlla yu màgg yi te benn yàqalul kenn taam seeti ku feebar jox miskin mu lekk gunge néew woor amul benn occupation bu mu la occupé xoolal Abu Bakar benn nit jaamu yàlla yi mu def ko ci benn fan bi mu xëyee woor na dem na ci armeel ya gunge jox na fi miskin mu lekk seeti na ku feebar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñeent yi du daje ci nit lu dul mu dugg aljanna mbokk yi ci yàlla xoolal ñii ni ñu bëggee woon lu baax xoolal jaam yàlla yi ni ñu bëggee woon tiyaaba xoolal ñii niñ doon xeeñtoo yoon yi nga xam ne mooy yooni aljanna yi mooy yoon yi nga xam ne ku fa jaar texe ku fa jaar am ngërëmal yàlla kan ci yéen moo xëy woor Abubakar ne ko man kan ci yéen moo xëy gunge néew ne ko man kan moo xëy jox miskin mu lekk Aboubacar ne ko man kan moo xëy seeti ku feebar mu ne ko man laa ilaha illallah wuu laa ilaha illallah allahu akbar waay waay mbokk yi li mooy lislaam li mooy diine li mooy lu rafet li mooy lu taaru li mooy nekk jullit jaamu yàlla bëgg say mbokk dimbali miskin seeti ku feebar te terewulaa liggéey sa liggéey macca maana fimri in illaa daxal aljanna lii du daje ci nit lu dul mu dugg aljanna kon mbokki jullit yi kenn ku nekk ci ñun ku mën a gunge néew ci bis bi defal ku mën woor defal ku mën a jox miskin mu lekk defal ku mën a seeti ku feebar defal sikk ne ku ci ne tiyaaba rek nga ciy jële amul pertement ngërëmal yàlla rek nga ciy jële kontaante yàlla nga ciy jële looloo tax sallallahu alayhi wa kenn du moom xoolal ñeent yi mu laaj ni mu yombe benn jafewu ci muy xiirtal saxaaba yi pour bu ñu xëyee di ko def xiirtal di leen ñaax di leen soññ pour ñu mën a dugg aljanna xoolal bi mu Aboubacar tontoo ba pare yonent bi mënoon naa noppi rek ne ko jërëjëf waaye dafa ne lii kenn du ko def lu dul dugg aljanna kenn du ko def ci bis bi ci beneen riwaaya bi majtamaana fi mri'in fil mi illaa daxala aljanna lii day kenn du ko def ñeenti mbir yi kenn du ko def ci benn bis lu dul dana dugg aljanna ndeke kon yoonu aljanna soriwuñu moo ngi nii sunu wet jege bay bëgg dee ñu war di ci góor-góor lu guddi ak bëccëg góor ak jigéen mag ndaw foo mën a nekk loo mën a def góor-góorul ji di ak jeudi góor-góorul ci ayaamil biit góor-góorul ci kooru sunna yi góorgóorlu loo am di ci dimbali miskin yi góorgóorlu saa yoo déggee ko feebar nga même boo munta dem seeti ko jëlal sa téléphone woo ko góorgóorlul sa kemtalaayal kàttan soo déggee sa mbokk jullit bu génn àdduna soo mënee teewee rob teewe ko soo mënul jëlal sa téléphone nga woote jaale mbokk yi li mooy jikko ju rafet li mooy njàngale Seydina Muhammad lii la jàngal lii la fi bàyyi amul leneen pour société bi mën a ànd mën a suudewu mën a jàppante mën a bëggante pour jullit ñi nekk ci kaw ci kanam pour jullit ñëpp am ngërëmal yàlla bu ñu deewee dugg aljana lii moo nekkoon mission Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa lii la fi bàyyi lii la jàngale pour doomu aadama yëpp texe ñeent yi du daje ci nit ci benn bis lu dul mu nekk ci ñooñu aljana yàlla na ñu yàlla boole ci waa aljanna asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.